émission face face à euh, muy soxna Aïda Mbodj député maire ministre titre yi bëri na soxna Aïda maa ngi lay nuyu jox la kàddu gi nga nuyu mbokku téléspectateur yi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim asalaamaaleykum Pape maa ngi nuyu mbokki téléspectateur yëpp. Mhm. di nuyu waa des médias di leen di nuyu sama rak Bougane Gueye Dany ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk di nuyu waa Sénégal. Eh, te bu ma nee waa Sénégal nag dinaa nuyu Sénégal yëpp mais xam nga dinaa nuyu tam waa Bambey. waaw ah, Bambey <laughs> Bambey boo xam ne laaj bu njëkk bi moo di actualité politique bi mi ngi nekk ci dialogue bi d'abord lu tax ngeen jël décision participer ci dialogue bi. waaw Pape Alé man dama lay dama lay féliciter d'abord dama lay félicité parce que xam nga ni man ñëw naa bi ñuy dédicacer sa livre. Mhm. la di la di la di la encourager di la encourager te xëy na dinañ ci dellu siwaat ndax dafa am lu ma waxoon mais dama ko wax ci tubaab te bëggoon ko digal ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi mu jëm ci livre boobu li nga ma laaj nag ci mbiri dialogue bi nga xam ne moom la ñu def président de la république lancé ko bi mu prêté serment mu lancé ko dama ko waxoon keroog bi ñuy lancé dialogue bi le 28 mai mm-hmm. ni Sénégal gisuñu fi crise moom nag moo ñu ëpp information parce que moom moo yore réew mi moo yëlif ministre de l' intérieur moo yore ay rapport am xam ne it fii metti ci réew mi parce que la génnu réew mi xam na fii metti ci réew mi te ba muy lancé jaloog bi boobu yi amaat sax muy violence yi nga xam ne moo am ñu noté hmm. Mbuur noté ko Ndar noté ko fu nekk ba noté ci dëkkam bërki démb violence yooyu amagul woon mu woote dialogue ñun ñi nga xam ne dara tënkunu parce que ku am droit ni bañ am nga droit boo nangoo nañu laaj li tax nga nangu moo tax ma apprécier sa question président boobu bi ma xamee ne boote na dialogue bi ñun ñu gis ni fal nañ ko ba pare te lay tax du def juróomi at ñun ñaanuñu ko yàlla parce que ay démocrate lañu. Mm-hmm. te amuñu feneen fu nu jëm nag fu dul Sénégal. te dañoo bëgg dévolution pouvoir bi nekk sous forme démocratique. ñu ciy veillé itam. Mm-hmm. nekk itam ci sentinelle. te loolu dafa am sens bu ma la nee sentinelle la dinañ ci dellu si waat dafa am sens mooy la dévolution démocratique du pouvoir moom la ñuy xaar ku koy xaar ku ne nag buñ la nee ñeenti at yii leneen mënu fee am lu dul jàmm kaay ci jàmm jooju bu dee jàmm dong la ñor te jàpp nga ne war ngaa am li nga bëgg ci kaw jàmm war ngaa wuy ji kookee mhm. parce que li ñuy wax daf ñu ñor ndax dafa am lu fi amoon muy parrainage te neexunu parce que parrainage bi tànn dong la woon ak limité offre politique bi nga xam ne moom la nit ñi amoon man mi ma bokk ca ña nga xam ni dañoo leen rejeté woon te ma am conscience ni waruñu ma woon a rejeté jàpp nañ ni fichier bi def nañ ci lu ñu santaanewul te loolu buñ ci demaate it la fi nekkoon moo fi nekkaat mooy mu amaat na mu ko amee woon ñu ne duñ ko def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 waaw li muy changé administration territoriale bari na. Bambey yi ci raw seetlu nga Bambey préfet du fa def ñaari at. mais li mu loolu nag dama dama conseillé. ministre ko seetlu bari ne maa ngi dem parce que sunu préfet day dem ñu daal di ne ma waaw lu tax Bambey du am ñaari at du am préfet bu am ñaari at indeeti nañ fa jigéen xamuñu luñ ko fa indee xamuñu lan lañ ko wax ñu ngi xaar waaye euh, bu fekkee ni parrainage boobu commandement territorial ñoo ko war a saytu. Euh, képp ku am sa parrainage nga xam mm-hmm. ne du du jafe. Mm-hmm. ñu bëgg ko rejeter parce que nee nañu diw moomu warula taxaw nekk meeru sàngam ak nouvelle question yiy ñëw. Mm-hmm. yàlla bu muy dëkk bu am pétrole. yàlla bu muy dëkk bu am ay enjeu. ñu bëgg faa dindi euh, xalaat ni nit kooka warula nekk maire wala dara mais kooku day reyante d'autant plus que du doon maire ba rek du doon ki nga xam ne mooy déposé parrainage bi rek mais mbooloo ma nga xam ni ñoo ko parrainé ñoo dul nangu ñu rejeté ko. loolu dong ci jàmm la bokk su fekkee ni fichier bi wóoluwuñ ko comme ni ma la ko waxee léegi fichier bii fi nekk ku ci dem itam màkkee gañe loolu lu leer la na ko te man am na am na ku boo nekk société civile koo xam ne moo ma ko wax te pour fàttali ko ni ko moo ma ko wax moom ma ko waxee te jour bi nga xam ne ambassade de Suisse mu ngi def anniversaire kii am indépendance am te ba ma ko xoolee ba ca biir it seetlu naa ko mu am loo xam ne ñun ña nekk assemblée mënuñu koo régler mais jàpp nañ ne war nañ koo mën a régler ci dialogue bi. mooy audit bi. muy audit bi audite bi commission politique bi pare na ay conclusion ba jébbal nañ ko le président Famara Ibrahima Sagna te. fii laa ko koy waxe du ma nekk ba dem ak moom ci réunion mm, de bureau mm. wala conférence des présidents fii laa koy waxe di ko moom wóolu nañ ko faamara faamara mm-hmm. pour mu lancer audite bi pour mu seet ay bailleurs moom wóolu nañ ko pour mu doxal ko parce que commission politique bi encore une fois du dialogue politique commission la bu bokk ci juróom-ñetti commission yi mm-hmm. ni ci commission paix et sécurité bokke ni ci commission environnement et cadre de vie bokke ni ci commission ressources naturelles bokke ni ci commission décentralisation et territorialisation des politiques publiques bokke ñu wax ko ni ko na jël ay responsabilités am parce que wóolu nañ ko ba fii mu toll te suñ ko noppee wóolu àddina yépp dina xam ne ñun ñu ko wóolu woon wóolootuñ ko mais Macky dafa mën a suul ndaanaan de. Ah, wax nga ko de dégg naa sa benn chronique nga ne day suul ndaanaan te faamara ndaanaan la waaye jàpp naa ne fii mu toll tembe. Hmm. am naa ci yàqin parce que préjugé favorable tubaab di wax waxtu wu nekk nit daf koy war a am. préjugé favorable bi ma am ci Famara te moom la opposition bi am. Hmm. ba nga xam ne ba ko Macky di laataan proposé ñun proposé nañu. man ma nga xam ne maa ca amoon ñagg-ñagg xool rek moo di man damaa bëgg waxtu wu ma ne d'accord atuma rek ma am rek ma am dëgg. Hmm. Euh, ki nga xam ni président moo ko tànn maanaam nguur gi moo ko tànn man damay bëgg di des ci sama sama statut opposition. Mhm. pour que bu ëllëgee bu ma gisul lu ma xam mën koo ne kii kat d'accordatuma ci moom. Mhm. te koo xas ba proposé mënoo ne d'accordatoo ci moom loolu tax ba ko bi proposé man ma beddeeku leen ne leen d'accorduma ci ngeen di proposé. waaye gis nga la ma ci waxoon sax ñi gën a sceptique ci opposition ñépp nag laa la wax ñi ci gën a sceptique amul kenn kenn ku gàncat. tànn Famara ñëpp àndandoo tànn ko mooy loo xam ni gëj na ci Sénégal gëwuma sax ni mës na fi am. consensus. consensus boo xam ni ci benn nit. boo xam ne macha allah yaa ngi dund am euh, occupé li nga mës a occupé ci réew mi euh, am fonction yi nga am ci réew mi ñu tudd sa tur kenn gàncatul sa tur. Mhm. kenn gàncatul tànn biñ la tànn. loolu macha allah yal na ko jig mais moom la ko yàlla defal.